data center dafa nek lo xamné ne ci aduna bi so xolé dëkk yëpp ñom ñëpp ñu ngi préparé wu ku ci nek yang koy wut parce que avant nek won peut-être priorité tay priorité la parce que ñu xolé tay données yi euh, ce sont des millions et des millions de données yo xamné les Sénégalais di produire par jour euh, surtout administration bi parce que suñu administration bi soo gisee peut-être mu xaw a si nu ñuy liggéeyee wala niveau de service bi euh, sénégalais yi peut-être gisuñu ko alors que am na ñu derrière les machines derrière les fonctions euh, fonctionnaires yi di si euh, c'est parce que amuñu infrastructure bi infrastructure bi léegi defar nañ ko moom mooy dara centre bu Diamniadio donc day tax ñu stocké toute l'infrastructure des ministères léegi seen liggéey rek la ñuy def soxlatuñu toog fii di liggéey informatique naan dañu liggéey serveur parce que du seen liggéey du seen du spécificité du seen euh, expertise expertise bi ñun ñoko yor donc ñun ñun ñoy récup ñun ñoy ñun ñoy jël à peu près euh, seen liggéey boobu bob seen partie liggéey boobu noonu bu ñu don def euh, jël ko def ko sécuriser ko accompagner leen day tax ñom ñu gëna concentré wu ministère bu nekk si lu tax nga nek ministère lan moy sa liguey lool dal mom motax en fait ñu créer data center bu Diamniadio bi waaw ñun data center bi lool motax ñu nan data center international parce que avant amoon data center data center yu ndaw amna ñoo xam ministère yo xamné sax comme ministère de l'économie des finances amna ci data center Senelec am na ci data center mais bi lutax président ci bopam ñew ba fofu inaugurer ko parce que dafa nek lu bess dafa nek lo xamné en terme de capacité dafa nek lo xamné en terme de sécurité bokku na ci data center yo xamné ne mën nañ ko lim dans le monde comme data center de rang international donc so data center de Tier 3 nuñ ko défaré euh, tax na ba mënul panne c'est-à-dire lool moy système Tier 3 bi pour mu panne peut-être si at bi euh, ay une heure dix minutes le monopole maximum Les lañu ñu euh électricité l'électricité dañ ko euh, énergie bi dañ ko c'est-à-dire lu nous nek dañuy am façon euh, de ravitailler le data Donc, donc euh, am une capacité pour héberger données administration publique bi yépp. am nañ capacité pour yenn société privée sénégalaise yo xamné xam am confronté à ces problématiques là am une capacité les héberger am nañ aussi capacité au niveau de la sous-région parce que suñu dëkk yu nekk yu ñu wër yëpp suñu xoolee ñoom tollaguñu si niveau technologique boobu noonu donc au lieu ñu jël seen données yi di koy jox américains yi wala français yi de manière plus générale aux étrangers ñu indi ko Sénégal bi xam ne c'est un pays de la cdao am na ay chartes CEDEAO yi ñu tënk donc moo gën a dal seen xel loolu moo tax aussi ñooñu aussi euh, dañ ko créer pour ñoom. waaw ndaw yi ñun on les invite ah je lance damay profito lancer un appel à euh, vraiment ndaw yi étudiants yi ñoo xam ne chômeurs yi ñoo xamné am nañ ay idées mais mais peut-être xamuñu nan lañ koy organiser wala xamuñu fan lañuy dem bu def ko so waree Sénégal di nga gis ne euh, saa yi boo doxee si benn koñ rek di nga gis un service bo xamné ne mën nga ko créer mais